Mustafa santal dayab cant yaa fi Mustafa santal dayab cant yaa gën amul ku lay werante te ka ci Mustafa bokki taalibe yi baa ngi nuyoo di wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa su fekkee lu ne wax rek asalaam. Cheikh Mouhamadou Moustapha. Cheikh Mouhamadou di Aminta Fall. tànk yi ko tax a jóg mooy. bis bii ñëpp bokk. bokk. lu ñëpp ku nekk am bokk moom ku nekk am nga ci wàll. nee na ka yitte woo wàllam nag. ka yitte woowul wàllam. ba jëlu ko. kooka moo xam. waaye sëriñ Falilu yi yitte woo na wàllam wii. mooy lii ko tax a jug. siyaare ci bis bi bis bu tedd bii nga xam ni. lépp ko bokk. lépp ko bokkit. Ah, nee na ñun murid yi. sunu xel yi nan ko tàllal. sunu xel yi nan ko tàllal. buñ ko wudd rek. sunu xel yi. nan bàyyi. nan bàyyi sunu xel yi. muy xalaat lu jëm xalaat lu jëm ci sëriñ bi. bokk na ci nee bokk na ci loolu. kii toog kii toog. di Cheikh Mamadou Moustapha. ma ma ma ngi daw mi ngi ni daw ci biir wax ji muy wax. ni mu jàppee. nee na ni mu jàppee. bari na koo bari na koo xam ni. fa nga nekk. fa nga nekk. te nekk ca kanam mbooloo ma. te nekk ca kanam mbooloo ma. wi tax na. wii tax na. nga doxee noonu ca mbooloo ma. nga doxe noonee nga doxe ca mbooloo moomee. nee na ku ñëw ba fekk ko fii mu toog. xool ko. nee na Cheikh Moustapha du tas sa yaakaar. waaye da lay mënoo ñëpp leen bett. nee na. ma ko bëgg a mhm. nee na ku dox ba egsi. faaw boo xoolee Cheikh Moustapha am lu la bett. ndax bu doon saa yi rek la. fa lay séenoo. fa lay séenoo. du la fa fekk mbàkke. waaye da ngaa xam ni. yëfi jàmbur jàmbur nga yor rek. yor yëfi jàmbur nag. yor yëfi jàmbur nag. deesu woo. nee moo dal Cheikh Moustapha mi toog. nee na mbooloo mi fi nekk. nee na doonul ci ñoom dara. nee di leen womal rek. teg ci loxol kilifaam. yaa Ahmadu li Muhammad li Muhammadin yawmal qiyaam sant leen sunu waaji waay Cheikh Moustapha yaa neex a àndal dal nga xel. wa mag daru yi fi yeggu leen jébbal sa wa man nga gumbayee boo la fa ñi tegel fanoo góor ak jigéen yaa di jox ay càngaay ku la daw nga dab ku la fay nga fay lii te doonu fay mboolem jirim yeeg baay yaay seeni baay yaa ni teral yaa ni yaram dinu may dërëm yaa ni defal yaa yaay jenn waay yaa yor teraangay mag ñi Bamba yoraale moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay yaa xam teraangay waa Kajoor ak waa Bawol yaa yor sagu buur fi daa bi am lambaay wa man nga naar wa mat wolof kenn réeratul yaa tiitari baa doole ñi di sant Njaay yaa Mustafa nil Mustafa nil Mustafa yawmal qiyaamati rang leen fu ay midaay miskin ya daa jooy Seyxu Bamba ci wam sesin sa rongo seen rongo yi yaa mat la xooy mag jàkkatul ndaw tiitetul réew mépp a bég ngir mos lu ko dee mosal nga leen yaa bi sa yaa tee ñagub lislaam ñu sàqi ka yaa jénu rëy yaa tee murit seen mbaar manaay yaa boole galli boole car yépp car antal ximaadili ahlina yaa am wilaay